dem euh, euh, international union cycliste international la def bind retour bi bindee retour aussi euh, union cyclisme international def nay enquête am envoyé na ministère envoyé na président bi fi nekk ak ki fi nekkul yëpp ni leen nan defaat élection yi kon li li ci am yëpp ñoom xam nañ ko seen biir kon nan ko lépp ñu teg ko ci en règle parce que pour sunu jeune jeunes yi mën a di compétir international loolu moo nu ñor pas ñu ñuy jë ñu ñu nar Sénégal ci affaire international parce que ñun dañu soxla international parce que jeunesse bi xalé ñom ñep ñi ngi bëgg nek comme ay professionnel ay Sadio Mané yenen ak yenen pa soxla wu ñu lo xamni fi lañ koy def ci biir dëkk bi kèn du génn kon xalé yi ñom ñep dañuy bayyi vélo kon ñom international bi mo leen ñor parce que déjà ni casquette yi ñu sol ni espagnol yi ñoo ko jox comme ay partenaire préparer suñu ñu xolaat changer wat def assemblée générale li aussi wax ñu defaat ko parce que aussi nañ changer wat nañu defaat assemblée générale bi baaxul donc lu baaxul duñ ko war defar euh, defaraat te le gars là bu ñu namee président warul nekk sa candidat faf aussi loolu la wax. du ñuy suspendre Sénégal sept ans dootul daw dootul bokkati compétition ne licence sax doog ñii mënuñu defar sax licence ñi fi nekk nii mënuñu parce que amuñu code licence bi code licence bi ah ñi fi ñi génn ñoo ko yore. Nous avons ñom la recours déposé à l'UCI UCI une union cyclisme international Nous avons fait le di saytu lepp lu vélo aussi bi après envoyé un correspondant au Sénégal manam ay euh, ministère ñëpp xam nañ ne ministère war nañ jot euh, Michel nous avons président ak beneen bi di Fata Faye mais après def nañu jàngat que ni euh, ministère tontuwul fatafay tontuwul euh, mais ci bu tontu na mais ba léegi ñoom waa waa waa waa Union Cyclisme International tay wuñu ñu envoyé waat ay yeneen correspondant euh, fii ci encore ci Sénégal mais ba léegi nanguwuñ tontu moo tax ñun ñu jóg pour di waxtaan ak ki nga xamante ne si mooy sunu ministre tel muy monsieur Matar Ba pour dañu def ay élection nu mu gën a gaaw parce que bu buñ ko defalee mën a toll foo xamante ne si du baax ci sunu.

bu ñu toogee ba benn instant xam ni Sénégal kat lii ñu leen wax nanguñ ko def nanguñ ko respecté ñoom dañuy jël seen décision dañuy xëy rek ndogal yi wàcc ñu ni Sénégal añ nañ ko ñeenti at wala añ nañ ko juróomi at wala añ nañ ko juróom-benni at. moo tax na encore une fois ma il faut ñu xëpp suñu bët ñu xool parce que adduna bi mi ngi développé olof Ndiaye ne nag génn golo gàtt gàtt na mais loo ci laal borom yëkk ñun amuñu dara lu dul cyclisme kon encore une fois Matar Ba monsieur notre ministre tutelle moom il faut mu jël ses responsabilités bañ nous ñi nga ne xamul ci ci texte socialisme dara Nous ko di ko non il faut ñu waxtan ci point il faut que mu jël responsable dem té ñun li ñuy laaj nous xam nga laaj nañu assemblée nous, ay élection yu lèr ñu xamné ki mo gagné ki nous président waaye faire ay élection bu boba nak dañ Sénégal ah Sénégal kat ñun wa aussi nous leen taxone wala liñ leen waxone ñom ñuko ñun dañ leen di ci fo muy national même international. tey Maroc avancé cyclisme Rwanda avancé Sénégal on dans un pays souverain fii quatre ans non ay course ay course Dakar ñu ay randonnée ñu compétition internationale compétition pour mu am il faut ñu def li nga xamante ne si mooy li aussi wax maanaam defaat ay élection yu jaar yoon là ñun daañu mën inviter invité suñu ay moroomu nawle sous région bi muy Mauritanie ñun par exemple tey defoon nañ suñu benn projet bu ñuy wax projet Tour du Fleuve mais loolu la moo tax tey mu mu am ampleur c'est parce que dañu invité woon invité nañ fi euh, Guinée Guinée Bissau Mali Bénin Gabon ba ci France encore une fois maa ngi demandé waat ki nga xam ne suñu ministre matarba Ba bon dañ koy wax en tant que frère en tant que notre ministre tutelle mu ubbi ay gëtam defaral ñu li nga xamni mom lañ soxlo metti wul jafé wul muy assemblée générale bu leer nañ té assemblée générale bi dafa am nu muy demee du n'importe qui mo war voter non du n'importe qui mo war voter ñun depuis 2019 2012 ba légui ñoo ngi ak suñu ay licence chaque année ñoo ngi fay suñu assurance normale ñoo ngi am ñoo ñoo ngi suñu suñuy coureur ñoo leen fay licence kon assemblée générale bobu ñi fa am droit dugg xam nga moy ñan moy ñi nga xam dañu am licence N moins 1